wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi ak bokki taalibe yi sëriñ Mouhamadul Bachir nee mi ngi yëkkati kàddoom ci ndigalul cheikh Mouhamadul Muntaxa mi fi sëriñ Touba tey ci kaw suuf di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mu àggale mbooleem naal yi nga xam ne am na ko ci liggéeyub sëriñ Touba bi te ñaar yi nga xam ne sëriñ Touba neewoon na yàlla sunu boroom rek moo ko mën a joxe yàlla na nu ko defal muy ak fekke akuk tal kon mu ne sëriñ Mountakha nee na mi ngi yóbbante ab nuyoo ci Serigne Amdi. moom Serigne Modou Mbenda mi fii jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall tey ci kaw suuf ak mbooleem rakkam yëpp ak taalibeem yëpp ak doomam yëpp ak nag mbooleem bokki taalibey murit yi nga xam ne ndigal li ci ñoom la jëm si nee na ndigal li nag mooy mooy fàttaliwaat rek li ñu nekkoon mooy ndigal li ko santoon muy ndigal lim ko santoon. te bam leen ko santee ba nëgëni. te bam leen ko santee ba nëgëni. ñi ngi koy def nag nu kawe njortul sëriñ bi. muy nag loo xam ne du mbetteel ci moom. ndax lu jógee kër sëriñ Touba. jëm kër Cheikh Ibra. jëm kër Cheikh Ibra. noonu nii képp la war a demee. kon sëriñ bi nee na mi ngi santaat sëriñ Amdi bu baax. di leen ko yóbbante. sëriñ Assane. yaak sëñ Daam. ak maam Cheikh ak bokki taalibe yëpp nee na bàyyiwut kenn ci fi ñi fi teew sëriñ bi nee na mi ngi leen di yóbbante ak cantam ak ngërëmam te xam ne kat noppaluwu leen benn yoon yéen a ngi ci liggéey bii yéen a nga ca daara ja yéen a ngi waajal koor gi kon yéen wàccu leen benn yoon liggéey bi nag tax ñu daje fi tey liggéey bii tax nag ñu daja fi tey sëriñ Cheikh Mouhamadul Mountakha dafa wax ne. sëriñ Mouhamadul Mountakha daa wax ne. sunu borom dafa waxoon ci alxuraan ne. sunu borom daa waxoon ci alxuraan ne. amana rasulu. amana rasulu. bima unzila ilayhi min rabbihi. bima unzila ilayhi min rabbihi. wal mu'minuuna. kullun amana billahi. kullun amana billahi. wa malaikatihi. wa kutubihi. wa rusulihi. mooy yonent ci boppam. mooy yonent yi ci boppam. yonent bi ci boppam. day gam boppam. day gëm boppam. doog a mën a doog a mën a jariñu ci boppam. sëriñ sëriñ Sonia bu daan wax ne. sëriñ Sonia bu daan wax ne. boo gisee sëriñ Touba. boo gisee sëriñ Touba. daan jàpp ba ci ba noppi. daan jàpp ba noppi. di ci barkeelu. di barkeelu ca njàpp ma. nee mooy njabootu sëriñ Touba gi. mooy njabootu sëriñ Touba gi. kenn ku ne. kenn ku ne. yaa ngi sàkku sëñ Touba ci sa morom. yaa ngi sàkku sëñ Touba ci sa morom. loolu la tax sëñ Touba daan ko def. loolee la tax sëñ tubaa daan ko def. da ko firi woon bis. da koo firi bis. waxoon ne. daa waxoon ne. li ñëpp gis ci li ñëpp gis ba daw jëm ci jëmm li ñëpp gis ci sama jëmm ji ba daw jëm si ci. loolu la gis la jëmm ji gis ci boppam. nee na loolee nag la jëmm ji gis ci boppam. te bëggut ku ko ci ëppale. te bëggut ku ko ci ëppale. Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne. Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne. liggéey bii mu leen santoon. liggéey bii mu santoon Baye Fall moo tax moom itam. moo tax moom itam. joxe addiya ñëpp la joxe addiya ñëpp la war. moo tax oto yii mu jël ko. moo tax mu jënd oto yii. muy ñeenti oto. muy ñeenti oto. def ko addiya sëñ Touba. def ko addiya sëñ Touba. tabbee ko ci biir liggéey. tabbee ko ci biir liggéeyu Cheikh Rafal bi. nee na tuyaaba ji ngeen ci am. nee na tuyaaba ji ngeen am ci liggéey bi. la ci bëgg am moom it. nee na moom it loolu leel ci la bëgg. mu jënd ñeenti oto. noo tax mu jënd ñeenti oto. jox leen ko jox leen ko. def ko def ko addiya ci biir liggéey. ngir def ko nag addiyaam ci biir liggéeyu Cheikh Rafal bi. ndax nee na war mooy dëkk bi. ndax nee na war mooy dëkk bi da koo ñor lool. da koo ñor lool. ndax sëñ Tuubaa da koo ñaan. ndax sëñ Tuubaa da koo ñaan. ci matlabul fawsayni. ci matlabul fawsayni. wàccal xarimana. wàccal xarimana. xariman amina. xariman amina. wa kun bi xifsihi. wa kun bi xifsihi. kafilan damina. kafilan damina. nee na kon wóor na ko ne. nee na kon wóor na ko ne. dara dara mënu fi am lu jàmm. moom mënut am ci dëkk bi lu weesu jàmm. li fi sëñ Tuubaa bëgg itam. li fi sëñ Tuubaa bëgg it. sunu baram defal na ko ko ba nag. ndax. da nit nekk ci biiram du ko nit bu nekkee ci biir mbir mën na koo bañ a yëg. waaye Touba li fi am. waaye Touba de li fi am. ci jàmm ci jàmm. amul fenn ci àdduna. ko génn xam ne amul fenn ci àdduna. loole nag. loolee nag. sëriñ bi dénk leen ko. sëriñ bi dénk ko Baye Fall yi. ngeen di ko saytul. ngeen ko ko saytul. nam ko bëggee. nam ko bëggee. kon nag eh, sant bu baax baax. kon na ngeen sant nag bu baax. te xam ne la alxuraan waxoon ne. te xam ne la alxuraan waxoon ne. laa yastawil xaaxidoona. laa yastawil minal muminina minal muminina xayra uli darari xayra uli darari wal mujahidona wal mujahidona fi sabilillahi fi sabilillahi bi amwali wa anfusihim bi amwali wa anfusihim fadlallahi mujahidina fadlallahi mujahidina bi amwali wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim alal xaahidina alal xaahidina darajatan darajatan wa kullan waxdallaahi usna kon yéen ñi futti ko kon yéen ñi nga xam ne yéen a futteeku jaayante jaayante seen guddi ak seen bëccëg seen guddi ak seen jox ko sëñ Tuubaa jox ko sëñ Tuubaa mënu leen yam mukk ña toog leen a yam nag ak ña toog ca seen i kër kon loolu kon loolu taw feex rek la sëriñ baa ngi leen di sant te xam ne liggéey bii itam te xam ne liggéey bi liggéey bu tàmbali la liggéey bu tàmbali la te loo xam xam ne nag du dakk ba àdduna tukki ba ci suñuy sët. ba ci suñuy sët. nii la war a wëyee. nii rek la war a wëyee. liggéey bu diis ndax liggéey bu diis la. moo tax nag kon. moo tax nag kon. mi ngi digal taalibe Serigne Touba yëpp. mi ngi digal taalibe Serigne Touba yëpp. na ci ñëpp ànd ak ñoom. na ci ñëpp ànd ak ñoom. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. sàmmale leen ko. sàmmale leen ko. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. defar sa jëmm. defar sa jëmm. ba ba kenn bañ laa jubbanti. ba kenn bañ laa jubbanti. ñi nga xam ne nag. ñi nga xam ne nag. defaru nañ ba noppi. defaru nañ ba noppi. am kattanu xalaat. ko am kattanu xalaat. nga jàppale leen nga jàppale leen ci. ko am kattanu jëf. ko am kattanu jëf. sa alal. ci nga dimbale leen ci. nga ndax joxe sa ndax joxe sa alal. dara ëpp ko tuyaaba ci yoon wi. dara ëpp ko tuyaaba ci yoon wi. te Serigne Touba waxoon na Cheikh Issa te Serigne Touba waxoon na Cheikh Issa Diène na ko. ba amoo taalibe bu nanguwut a liggéey. ba amoo taalibe bu nanguwut a liggéey. mu ne ko boo ko amee da bëriwut. mu ne ko su ko amee da mu ne ko boo ko amee sa wàcc ko. ko boo ko amee wàcc ko. ndax taalibe bu murit. ndax taalibe bu murit. bu nanguwut a jox sëriñam addiya. bu nanguwut a jox sëriñam addiya. nanguwu koo liggéeyal. nanguwu koo liggéeyal. ab sëriñam mënu koo jëriñ. ab sëriñam mënu koo jëriñ. kon loolu képp mooy li ci am solo. sëriñ bi ne mi ngi yëpp. kon sëriñ bi nee na mi ngi digal taalibe yëpp. ko am kattanu mën a jox oto. ko am kattanu mën a jox Baay Faal yi ab oto. na ci joxe ndax du doy. ndax na ci joxe ndax du doy. liggéey bi ndax liggéey bi daa rëy. ku amul kattan mën a joxe oto. mën a joxe oto nag. mën a joxe addiya. te mën a joxe addiya. ju sax sax. di ko ci def di ko ci def. na ko na ñoom. na ko ànd ak ñoom. ndax liggéey bi moom. ndax liggéey bi moom. xam ngeen doole xam ngeen ne doole moo koy def. waaye kattan koy def. waaye kattan na koy def. ndax mbooloo mi mën nañ ñetti téeméer ndax mbooloo mi kat mat na ñetti téeméer ak fukk ak ñett. kon loolu lim bu diis la. te loolu limu baatin la ci yoon wi. te loolu limu baatin la ci yoon wi. ndax Serigne Touba. ndax Serigne Touba. ba muy dem ca géej gi. ba muy dem ca géej gi. waa ahlu badri yam àndaloon. waa ahlu badri yam àndaloon. mooy lim boobu. ndax Cheikh Abdoul Ahad waxoon na ne. ndax Cheikh Abdoul Ahad waxoon na ne. képp ku fi nekkal Serigne Touba. képp ku fi nekkal Serigne Touba. ña àndoon ak Serigne bi. ña àndoon ak Serigne bi. foo nekk ñoo lay sàmm. foo nekk ñoo lay sàmm. képp ku bëgg a jëmee ci yow lu dul noona. képp ku bëgg a jëmee ci yow lu dul noona. ñooy dox sa diggante ñooña ñooy dox sa digganteeg loolee. kon nag kon nag ñu ngi ciy soññi ñëpp taalibe yëpp sëñ Abdou Lahad Ka mi itam bi ma ko ko yëgalee. bi ma ko ko yëgalee. jox ko ci ndigal. jox ko ci ndigal. na ko yow kat yaa jiite maire bi. yaa ci war a jiitu kon. yaa ci war a jiitu kon. sa jëf moo ci war a njëkk a tàbbi. taalibe yëpp ànd koog yow. taalibe yëpp ànd koog yow. fasaasa yi la ma ko wax ne ko. kon moom it bi sosoo na ci. kon na ci. weer wu nekk weer wu nekk. junniy litre. junniy litre yi gasoil. bu ko defee muy dem ci oto yi. bu ko defee muy dem ci oto yi. kon nag loolu. noonu mu ko defee. noonu mu ko defee. ni la ko ñëpp war a defee. ànd koog ñoom. kon ñi ngi sant bu baax. di bañ a guddal di ñaan rek. yàlla na ko Serigne eh, Touba tàbbal. yàlla na ko Serigne Touba nag tàbbal. ca liggéey ba Cheikh Ibra liggéeyaloon Serigne liggéey ba Cheikh Ibra Fall liggéeyaloon Serigne Touba. ba Serigne Touba nangul ko ko. ba Serigne Touba nangul ko ko. ba lépp demee nii mu demee. ba lépp demee nii mu demee. liggéey bi yàlla na tàbbi ci biir liggéey bi yàlla na tàbbi ci liggéey boobee. lam ca lam ca làqoon ci ngërëm it. lam ca làqoon ci ay ngërëm it. ngërëm na ngërëm yii yàlla na tàbbi ci ngërëm yooyee. mu tolloog li alxuraan di rek ne. mu tolloog li alxuraan di wax ne. ña leen jiitu. jiitu. ci ci ngëm bu ngeen mënta àgg fa ngeen àgg itam ba ngeen mënta àgg fa ñu àgg itam bu ngeen góorgóorloo rek seen pësteef àggale leen foofu yéen nag am ngeen tawfeex am ngeen tawfeex ndax li leen seen maam fàggul ndax li seen maam fàggul yéen Baye yéen Baye Fall mooy lu mujj a judd rek. mooy lu mujj a judd rek. ëpp pësteef ëpp loolu moom pàgguteef la. ndax àdduna soppiku na. ndax àdduna na. jamono ji yàqu na lool. jamono ji yàqu na lool. waaye yéen ku dugg seen biir kër yi. waaye yéen ku dugg ci seen biir kër yi. xam na la fa nekkoon démb. xam na la fa nekkoon démb moo fa nekk ba tey. dara soppikuwul ci yéen dara soppikuwul ci yéen. mu baax sax soxlawu leen ko. mbuum mu baax sax soxlawu leen ko. waxuma ak tabax bu rafet. loolu moom taw feex la ak pàgguteef. waaye du lu doomu adama mën a defal boppam jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah